salaamaaleykum sama gars yi nii naa leen ziare leen mais xam ngeen fii toj ñara jax <laughs> non maram maram maram non billaay kii faadaa ko xale bi yàlla na ko lafal cat waaw li amul fenn li fii rek la mën a xewe <laughs> si 2STV la mën a xewee billaay nag mais théâtre bi moom neex na torop torop torop macha allah zéro bi yoon moom zéro faute laa la neex na maram joué na ko wax ji neex na tontu bi jaar na yoon macha allah daal macha allah maram kontaan naa ci yow trop mais lan la man daal bëgg naa lu xew lan la yow lan la lan moo xew man bëgg naa ko xam waaw la mi lu may ragal ci maram mi mais daal fin bi moom ci xaw a jaaxal fin bi moom yàlla bu mu nekk dëgg maram tàng na de xam naa ne bés bu nekkee dëgg rek non dina metti dina tàng billaay nag dina mel ni mburu ma mburu mu jógee léegi léegi si fur bi laa la wax ci xoyam man bëgg naa lii et eh, madame kontaan naa si yow macha allah macha allah film bi daal yal na yàlla laf cat laf cat daal macha allah kontaan naa trop. salaamaaleykum sëñ bi maa leen di ziar bu baax a baax maa leen di nuyu ku ci nekk ci turam santam ku ci nekk na na ko bàyyi xel ci boppam euh, Marème li mu def nii c'est pas normal parce que anu audace dem di fekk nit ci këram am nooy doxalee ci nga nit ki da ngay am respect sa bopp beneen bi mere naa Cheikh trop trop trop trop parce que boo demee ba takk ñaar jabar war ngaa am beneen kër goo xam ne foofu nga koy dugal waaye léegi ñoom góor ñi si boppam ñoom ñooy tax seen sëy parce que ku ci nekk ak a jukkoom parce que action bi dafa mel ni sama xol bi nanu laal dama bëgg lii ngeen jàllale ko parce que Marème moom ah amul benn benn benn droit ah di tontoo euh, ni euh, kee wujj bi en plus wujj bi doom jaa ngi feebar moom moo ngi woote lan mooy audace mi jël portable jëkkër ji ba di ko décroché ba di ko tontooloo moom kay dafa waroon yee Cheikh nànk ne ko Lalla moo lay woo ba xam lan moo tax la di woote heure boobu xanaa Lalla ah dafa def goo xam ne xam na ni Cheikh fee la ay ah, di woote heure boobu di déranger parce que doomam moom moo feebar moo tax mu woote heure boobu. di nga nit ñi nag nit boo ko mayee benn mu jël lépp parce que tey boo leen ku nu ubbi sa bët rek xaw ma na la ko olof di waxee doy na waa daal. asalaamaaleykum yéen waa Lu maa ngi leen di di leen ziar euh, di participer bi ah wax dëgg yàlla série bi moom macha allah neex na trop neex na trop defati nañ seen mëneñ kon dog rek. mi man li xaw jaaxal ci kaw Marème bi Marème moom dafay bëgg jël comme système mu lalla bi wala nu mu demee noonu non fin bi moom franchement doy na waa trop mais am na côté bu ma ci neex comme bi dikkee Marème fekk lalla ci kii bi hôpital bi non wax na ko dëgg billaahi lalla affaire bi dafay bëgg a ëpp te dafa comprendre kii jigéen la comme moom dafa moom ayam. te it jabar la comme moom it wax dëgg yàlla jigéen neexul comme li mu wax si wujje neexul comme li mu wax seex ñu xam sa secret yooyu neexul mais dafa war a accepter ni li am na ba pare li am am na kenn mënu ci dara avant la woon mais instant bi moom war na mën a nangu wujje gi moom si côté Moustapha Racky seen diggante dina xawoon naqari de ak ñu daan neexee xam nga ni koy siibu di ci gis sa bopp ak tey ni mu dëgg nii noonu tey na waa trop trop trop franchement moom affaire bi neex na série bi neex na macha maa ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax baax baax di leen nam di rafetlu bi émission bi bu baax baax di bi wax dëgg yàlla film bi na trop neex na moom tey moom neex na wax dëgg yàlla neex na Marème moom macha allah mën na booram Lalla la it macha allah na bàyyi affaire yi na woote jàmm waaye na woote jàmm Cheikh moom lu mu wax li moom ci dëggaam la nekk waaw nag ci Lalla sokki ci rek waaw ma rakki laa yërëm na rakki moom vraiment yërëm naa ko yaayam bi moom nit doo doxalee noon sa doom sa doom bu mu bëgg rek nga koy may waaye di force ni ndax alal amul fenn. ñu ngi noonu yàqal ka digganteem ak euh, ma gis nga de waa Jalika moom léegi moom dafa firi moom émission bi neex trop ay de moom def na délai bu rëy dugg fi ci kër laa la fekk foofu moom toj na foofu ah Marème moom ñaareel bu am fit la moom yàlla bu ñaareel yëpp mel na Marème moom waaye am na fula fula la am nag maa ngi kontaan kontaan naa trop leen ñaanal yàlla rek affaire bi yokk ba ngeen yëkk macha allah maa ngi wootee Mauritanie c'est madame Niass ay dagay wane bii. Cheikh Diagne tamit franchement suma ma sañoon mu wàññi def yëfu kilifa tuuti te dawal au moins minimum de respect pour lalla muñ na ba fii franchement bu mu jël ñaari jeeg boole leen ci biir kër surtout marine bi nga xam ne dafa doy waar franchement na ko utal feneen rek comme am na ko mun na ko. waaye boole ñaar jeeg si kër lii mooy andi ay xulloo moju parce que ku nekk sa jikko dèjà ma rakk si kër rek day indi ay xulloo waxtuma laa leneen bëgg see dolliku day doy waa tamit di wax tamit ci si euh, euh, Edmond ak euh, comment dirais ak waaye damay fàtte tur bi mais franchement je trouve que waru ko woon fen parce que couple moom la première règle mooy je mooy la vérité wax dëgg lu métti métti wax ko danga ko wax carrément dëgg bi ñu mën na juboo mën a doon benn waaw mais gàcce gi mu ko fekkee tey ah, doy na waar daal sama gars yi ngeen bàyyi si xel. asalaamaaleykum maa ngi leen nuy waay yéen ñëpp euh, di leen ziar bu baax donc je me suis pas trompée c'est le de lu xew euh, lu xew TV tey man samay commentaire neex na neexul franchement je trouve que Marème comme d'habitude exagère quoi mais man je trouve que tamit war na war nañu am beneen vision wujjee franchement na Sénégal wujjee nañ ko jël def ko def ko lu métti te franchement war na mën a neex ndax ay jullit nañu te yàlla ñu ko jagleel xam nga yàlla ko def góor yi jox góor yi mënuñu si dara. mun mënuñu si dara donc su ma sañoon nay gën a nay rafet daal pour ñun au moins ñun ñu duggagul fi sëy ñun ñi ay xale xamaguñu luy wujje au moins ñu mun si ñeme xam nga donc côté franchement euh, ma je di Marème wàññil wàññil ngir yàlla parce que ñun dañ dañ ko franchement dañu euh, euh, ñëpp maanaam fa ñëpp laa bëgg si ñëpp laa laa laa naw ku nekk am naa lu may jàng si moom si si si série bi donc c'est c'est un peu truc quoi ma ne wàññil ngir yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu leen siyaar ma ngeen def may participer ci seen série bi rek di wax ne am na solo comme man maa ngi waxe ci diggante Marème ak seex ak Lalla c'est parce que mm, Mariam li mu suye noonu bi ñu woo la woo seex maanaam rôle bi mu suye daal loolu la boo xam ne neex na ma lool tayit am na sens parce que fulla ak fayda la fi doxe waaw man daal série bi daal maa koy seetaan mais Mariam ak laal daal xam naa daal Mariam moom ni mi doxe daal wan na ne loolu la jiitu ci kër gi waaye nag mi ngi koy teg ci yoon te mi ngi koy xamalaatit nag série bi daal xam naa am na sens lool lool lool man daal diggante boobu daf ma marqué lool lool lool te seexit comme ni mu waxee laal la na ko par exemple maanaam jàppal ne Mariam dana sëy si ci kër gi waaw responsabilité boob mu taxawee daal daf ma neex lool parce que góor dafa war a fulla ci këram waaw noonu mu taxawee daal neex na ma lool tayit macha allah daal diggante boobu daal liñ fi su liñ fi suyee daal rafet na lool rafet na waaw. salaamaaleykum maa ngi lay nuyu waa Xew TV maa ngi lay nuyu bu baax a baax euh, ma bëggoon a wax ci seen série maîtresse bi euh, épisode 35 moom macha allah neex trop man moom du ko du ma épisode bu wàcc rek ma koy suivre mm, neex na lool waaw mais tey moom dëgg yàlla damaa xaw a mere mareem ndax euh, bi ma woowee Cheikh Cheikh wax ko li mu koy wax mënoon naa maîtriser rek mais waru mu dem kër laal la ci sama xalaat bu gàtt mhm. waru mu dem kër laal la c'est parce que tamit loolu day da koy yeblu daal waaw da koy yeblu te damay dégg naan laal la takk da ko bett takk gi bett ko ndax commencement ba fin lépp mi ko doon topp la kon takk gi bett ko mënoon naa réagir neneen mais pas nii moom tamit lii da lu boppam pour woon a doxalee nii tamit moom tamit mhm. waroon naa sàmmanteeg ngorom bàyyi Cheikh Diagne mu dem jox Mariam ayam ci li ma jàpp daal sama xalaat bu gàtt maa ngi jégalu bu baax a baax. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah émission émission 35 ko tey moom tey moom kilaamere quoi tey lal la lal lal di ko wax ay Cheikh Diagne di ko wax yow lal lii maanaam day sëy mu ne ko du ñëw waaye man lal la man xaritam bu baax waaw xaritam xarit moom ah mat na xarit ndax nee na ko bàyyi ko mu ñëw yow def li ngay def boo xëyee nga dem liggéeyi toppatoo sa sa njaboot ak sa avenir da ngay wax moom jigéen ju baax noonu lay wax xaritam waaw na naa dina changé quoi dina changé nag dina changé waaye tamit marem marem marem mare naa ko waaw kii ñëw si hôpital bi quoi yéen dégg feebar dégg ko woon a wax quoi loolu tamit a wax waaw waaw Moustapha moom da mere quoi xam naa ni Moustapha mere na ko ndax da wax lu am moo tax baabee waru ko woon ko woon a lii quoi xam naa ne dootu ko defati waaw dootu ko moom dootu ko defati waa ma wax ci kaaw Racky Racky moom tey ni nga def Moustapha moom jigéen du ko def ki mu bëgg gis nga nit bu ko bu ko nëbbu sa biir wax ko sa wax ko dëgg nit bu dee da ngeen bëgg a ànd seen ànd neex wax ko dëgg bu ko nëbbu bam la laajee lii lan la danga kaa waroon a wax lan mooy dëgg ji wax ko fi nga jëm wax ko li ngay wax ak moom wan ko ne ko dama ko bëgg a teg palaasam waaye dew ma ngir dara bu la fa fekkee dina xam ne kii dëgg moo ko tax a jóg dëgg góor dina ko nangu waaye góor boo ko xasee fen benn yoon jaan day jàpp ne heure bu nekk rek da kaa war a fen kon dee ko wax dëgg di ko wax heure bu nekk na ko dëgg mooy lii dëgg mooy lii waxu ko nit ki bu ko nëbbu sa bopp boo xasee jox sa bopp jox ko sa bopp lépp looy defara waxu ko day tax mu am ci yow confiance bar bu la gisee fenn dina xam ne kii lii waxoon na ma ko waaye lii day tax relation ak. Euh, dafay kii daal dafay garaaw Moustapha dafay garaaw daal dafay garaaw trop kon nag Racky moom li mu def tey moom man rafetlu ko dara moom wax dëgg yàlla ndax Moustapha moom li def ko bett daf koy jëlee kaw waaw waaye moom macha allah moom série moom tey neex na am na sens tey moom neex na am na sens trop trop trop macha allah ah waaye Cheikh Diagne nag juum nga moom juum nga de del jox ñaareel xaritu jëkkëram ayam de ko jox ba mat joxal jox laal la bosam ba mat gis nga góor du jeng ku ci nekk li nga moom rek jox ko ko waaw kontaan naa trop ci bi ah di leen ñaanal jàmm rek di wax ne yenn yi si bëri rek ngeen wàññi ko bu ngeen ko wàññi macha allah benn série buy daw Sénégal dàqut seen série bi benn série bi ko ëpp amul ndaxte da ngeen dund dund sénégalais ñun sénégalais lii lu dund te lii dañoo bëgg toujours ku koy wane ndax ñi ko xamul man koo xam ne sénégalais lii lay dund waaye bu ngeen wàññee toujours yenn yi si biir rek waaw yu xaw a sexy taal bu ngeen ko wàññee tuuti rek série bi moom série bu ko dàq am kontaan nañ ci trop di ko rafetlu bu baax a baax a baax a baax. asalaamaaleykum waa série maîtresse ni naa la ñun ñëpp di leen ziare di wax ne seetaan nañ trente cinq euh, épisode bi seetaan nañ ko euh, di ci kontaan di ko rafetlu trop di wax ne laal la na dal rek na dal na wane ne aawa la ndaxte awa mooy yaay mooy lépp kon na dal bum indi violence bum indi coow bum indi dara na ànd ak dal dal gu mat te xam ne gis nga aw buñ la ko xasee wax rek aw nga jikko aw nga yore mooy noppi gar nga yore bul dégg lu bon bul dégg lu ñaaw dalal nga gérer sa kër toppatoo say famille toppatoo tam sa jëkkër waaye nag Maria moom lim moom mooy aayam jox ko ko bam jeex bu ci bàyyi dara bu ci desal dara bul nangu sax bu aaye cheikh di ñëw ci kër gi ndax daf lay yeb gis nga jigéen buy nangu di sàcc aaya jàmbur rek sa moroom daf lay yeb bu leen ko nangu. ziar ziar ziar naa leen te lu xew lu xew tey ah, lu xew tey yéeme na tey affaire bi moom macha allah tey doom daal daal lañ ci de waaw neex na lool macha allah waaw nag sant bi moom man ma ciy débat moom du bari waaw ndax euh, rakki moom ci tànk war daa mel ni ca la jëm ndax ni ma gisee noonu waaw bu dee tamit amul leneen lu mu ci teg pour xalaat jàppale yaayam pour lu mu bëgg mais tam yaayam lu mu bëgg moom daanaka affaire de àdduna la waaw mais tamit mm, li ma ci yokkaat nag Marème moom dëgg yàlla. bëgg na jëkkër waaye sooy xool daanaka <laughs> su xam naa daal su sëy see moom kër gi moom dina toj moom waaw ke du xel yi daal xam naa yéeme na bëgg na jëkkëram waaye tamit euh, laala tamit xam naa tamit xelam moom nanguwut waaye ba mu jéem a nangu rek te kii te seex tamit yenn saa yi day seex moom ñu doxee tamit mooy loolu waaw seex moom nekk na góor goo xam ne tamit day mel li xaw a jeng waaw te jeng boobu tamit maanaam doxut ko waaw moom nay rafet daal nay rafet te tamit macha allah dëgg yàlla. théâtre bi neex na lool te tamit daanaka lii dafa jëm ci affaire de yeete te yeete bi mooy daanaka ñi nga xam ne la ñu nekk nañ ci kër daanaka di joy tamit di nekk ak gauche à droite te loolu doxut daal waaw maa ngi jégalu nag ci kàddu gi. maanaam euh, ba léegi itam wax dëgg ne xelam maa dellu nii euh, te di leen ñaanal suñu borom subhaanahu wa taala jëmale leen ci kanam rek waaw te. faj ajo yi te dàq saytaan yi ci barke Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul rek ah, ba léegi itam ah, pa bi nga xamante ne moo topp rakk yi itam wax dëgg neex la ah, na ko bàyyi nag na ko bàyyi rakk yi moom li waru ko mën a dal parce que rakk yi lu mu jànkonte ci boppam dafa metti bu mu demee booy dugg ci banee xam nag wax dëgg yaayam war na ko mën a jàppale wax dëgg ne yàlla mu bàyyi ko parce que nit ku nag kenn du ko forcer ab mbëggeel moom wax dëgg ne yàlla parce que ah man daal ci sama gis-gis moom paa bi moom na bàyyi li muy def moom paa bi mu ngi doon mu ngi doon jéem a yoxosu ndaw si mu bokkal bureau noonu gisoon naa ne da ko doon yoxosu ba ndaw si bàyyi ko paa bi tourné waat na ci rakk yi paa bi nag naam waaw nañ ko booleek Jalika comme kii papa Jalika la rakk yi nag gisanteeg Jalika mu boole ko moom man de loolu rek laa gis loo xamante ne dina mën a tax mu bàyyi ko waaw dafa war a dem ci Jalika comme kii moromu jigéenam moromu jigéen la comme moom to ñoo ñoo toloo carrière mu dem ci Jalika waxtaan ak moom vraiment Euh, waxtaan ak moom vraiment mu mu kii mu mu mu waxtaan ak waajuram parce que lii moom dafa metti lool dafa metti lool pa moom lu muy teg nii euh, raki moom metti na lool lool lool lool moom rakki moom euh, dama koo faa ndax Moustapha moom waaw bu loolu weesoo nag biram moom tegaleen man ko na leen rek biram moom moom moom moom kooku moom day yàq kaleeru xale jigéen rek waaye bàyyi ko foofu auzu billahi mina saytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ah alhamdulilah série bi maanaam bi Cheikh Diagne bi ak ñoom lala ak eh, rakki wax neex na lool car masha Allah eh, bi moom wax dëgg alhamdulilah waaye nag man moom eh, leen rek ñaar rek moom laa gis bi loo xamante ne vraiment mënuma ko supporter daal waaw mooy ki nga xamante ne mooy euh, Lalla lala du référence quoi parce que Lalla moom li muy def nii maanaam euh, du loo xamante ne jaadu na waaw parce que jigéen wujje moom bokk war seg la rek ndax euh, jigéen moom da nga war a xejale te góor moom dafa am takk ba ñeent ci soxna wax dëgg neexee la kon lala moom na yaatal xol bi te xam ne adduna bi xatul quoi parce que adduna bi xatul xol yi moo xat mais na lala moom na bàyyi li muy def lala li muy def tëgg ko fen quoi parce que lii moom euh, wax dëgg war naa bàyyi xel ne jigéen ñi ñoo koy seetaan moromu jigéenam dañ koy seetaan mu bàyyi ci xel bu baax a baax parce que lii day wàññi kaleeram daal day wàññi kaleeram parce que Cheikh Diagne daal moom tey moom am naa ci ba mbégte lool lool lool lool parce que lii mu def nii moom góor dangay jël sama tuwaay sa biir kër maanaam am sa fula ak sa fayda carrément moom vraiment kontaan naa bu baax a baax. salaamaaleykum maa ngi soog a seetaan épisode 35 bi na neex na neex na série bi macha allah dëgg yàlla ah manqué woon na ma waaw laal la bi ka ki waxee ne mareem day sëy si waru woon tëb warul def dara gis nga jigéen ju nekk sa biir kër di sëy bëggoo keneen rax la parce que sutura dafa baax si doomu aadama gis nga mareem su ñëwee rek sutura laa la dina uññoo surtout fi ñu jaar takk fi mu jaaraax li fi am yëpp fi mu ne nii day yokk fi mu ne nii neexoo du mën a am wax dëgg yàlla mareem mënoon nañ ko bàyyi si apartement bi rek mënoon ko fay bàyyi parce que fi mu ne nii sutura laa weeru na ba pare loolu moom leer na ma gis nga Marème li action bi mu def nii tamit du yoon du dëgg du yoon du dëgg du waru woon ñëw waru woon ñëw mënoon nay toog bi mu ootee téléphone kii ne du ñëw mënoon nay toog Moustapha ah ah ah moom wax dëgg yàlla seen problème metti na ma paa na toog rek le na dem si yaay rakki te mu bàyyi rakki rakki pour Moustapha la bu mu yàq seen diggante ah waaye paa paaya xawma paa sa meer ya xale sax xale ya paa bi na dem si meer bi ñi doxal seen diggante moo gën mu topp xale yu ndaw yi rek di ko la ŋaatu moom tamit ah merci waay jaay ngeen jëf ngeen baal ma nag. salaamaaleykum bu baax baax a baax bu baax a baax di wax tey moom épisode vingt cinq bi moom dëgg neex yàlla neex na macha allah neex na neex na trop trop trop sax waaw. mais nag euh, Marème moom daanu na tey parce que lu bon bon bon waru woon a ñëw si biir kër gi parce que fayda parce que ñaareel day mot ne man ñaareel laa xam ne lii nag mooy dëgg. salaamaaleykum waa si loolu la nekk mbay nañ ci jàmm alhamdulilah série bi comme ko di waxee rek neex na neex sax. mais tamit comme ñeneen ni nuñ koy blaamee rek dañu wara setlu bu baax xoolaat bu baax lu ñuy wax ak luñ dul wax waaw bu tey bi moom sax bon tane na parce que bon dañuy gis ni langage yi dañ ko modéré comprendre ngeen te aussi man ci benn côté lay wax rek mooy que ni Marème dafa war a tey def ndànk fa wara teey def ndank xam ne lu nekkoon ci doxaan bi nekkul ci sëy bi waaw doxaan moom fiir ñu lay doxaan lu la neex toj lu la neex wax mais boo nekk ci sëy moom fi ko dangay sëy pour am ay doom yu barke pour am ajana ah danga wara dal de toog def ndànk ndànk nu mu bëgg rajax-rajaxee ni ak laal la di tëb ci kaw kooku mais tey nit amoo leneen lu dul sa doom sa doom bu feebaree rek xamal ni yow doo nekk dangay perturbé wu te vu que carte bi aussi jëkkëram moo ko yor looloo taxit mu woo ko góor gi tey aussi ma Marème fan la teg civilisation bi xam ne moom téléphone bi moomu ko téléphone bi sori na na yee ndànk jëkkëram nan ko ak sa téléphone baa ngi sone loolu c'est plus civilisé waaye jël téléphone bi naan ko allo mu ne ko cheikh mu ne ko sama baat dalaa niroo ak góor yooyu yooyu dowul loolu du du du du wonin bu baax ci suñu société bi te bi que ñun ay musulman lañu c'est vrai góor war nga takk ñaar ba ñett ba ñeent mais est-ce que aussi boo takkee ba ñeent yooyu noonu ñooñu tamit comportement bi lañu war a yor non war ñu yor comportement bi loolu jara xoolaat la bu baax te Cheikh aussi fekkee ni nu mu ñëwee nii reet ci kër Lalla ayewul foofu fee la war a aye kon daal nee na moom day topp yëfi charte day day topp yoonu yëfi lislaam lu mu wax na ko teg ci yoon na dellu dem toog jàpp ayam ba mu jeex soog a dellu ci kër laal la Maram tamit dara jarul muy debarke wu kër la daf ko jarul même pas na toog këram xar këram dina ñëw na teyi daal nu muy won nu muy def nii de ah dañuy foog ne ñaareel yi yëpp loolu lañuy ñëw de day mel ni ñaareel bu ñëw déstabiliser famille loolay nirool salaamaaleykum warahmatullah maa ngi nuyu ñëpp di jéggalu di baalu ak bu baax a baax sànq daal laa jëloon numéro téléphone bi ma ne xaaral ba suñu ndogoo ba pare ma mun a bokk ci waxtaan bi mais man lu ma jaaxal nit ñi bari nañ coow te bari wax mais film bi lu si ne loo xam ne nekkul si àdduna bi dara nekku si man daal pour man Marème defar réussir ci rôle buñ ko jox mais film bi mënul yàq kenn. ndax xale yi déjà yàqu nañ ba pare ñoo xam ne dañu yàqu yàqeet yaa ngi yor sa doom sa biir kër mu yàqu nga koy xool te mënaloo ko dara kooku fii mu lu mu ko mën a yàq fii daal ku fi bugg a yàqu yàqu ku fi bugg a baax baax waaw parce que xale yi film yi ñuy seetaan moo gën a garaaw film euh, lii série bi ñuy wax nii chaque jour ñu teg euh, ay film ci euh, télé bi ñu di ko seetaan. ñu siy fonante ju si fuloor te di si def lu ne te xale yi dañuy toog seen papa yi toog seen yaay toog ñu di ko seetaanal loo looloo gën a ba xale yi dañuy sol seen col yi bon di génn ci mbedd bi nga koy gis te doo ko xale boo gis xale 15 ans boo gis yor na portable te boo ko ubbee rek xaru fii ku fi ne yaa ngi am sa doom ci biir kër gi yor portable am boo ubbee kër boo ubbee portable bi rek di nga xaru parce que di nga ne man xale bii ma jur ko si biir kër gi gow ma ne lu mu xam ni ñeme koo def ci téléphone am doo ko mun a supporter doo ko mun a jël waaye nañ bàyyi wax ci ñu yar seen doom yi ci biir kër gi doom ci biir kër lañ koy yar loolooy problème bi gis nga ku am ku yaradi ko lu la yàq day yomb mais ku yaru dara mun laa yàq waxuma la dara muy image su télé lii du dara lii day yeete rek parce que loo xam ne mu ngi si biir société bi nit ñi di ko dund moom lu muy wone ni nit ñi dañ koy dund chaque jour lii du dara fii daal ko fi dem liñ dem yéen xam nga lu fay am xanaa ku demul te ku demul tamit ñu la koy won rek pour boo demee nga xam lay def te yéete rek fii lu ne am na fi. salaam salaam maa ngi leen di nuyu waa internet ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen euh, baalu ak ci weeru koor bu sell bi man dama ñëw pour wax affaire série maîtresse bi. mais ñun dañoo war a xam ni que ñoom ñoom Marème ñoom joor ñoom Jalika ñoom Racky xam nga ñoom jóguñu rek def lu leen neex interno ñoom ñi nekk seen ginnaaw ñoo leen jox rôle bi mais bu ñu naree agresse eh, bu ñu naree wax ñi xamante ne ñoom ñoom ñoom ñooy def euh, série yi nii ñoom la ñuy waxal parce que ñoom ñoo leen jox rôle yi ñuy joué ñoom dañuy am ñu dogal ñoom ñoo am dogal ñoom joué rek lañu am mais ñu ngi rafet ñu ñu ngi rafetloo série bi neex na torop torop torop torop mais xam nga ñoom ñoo war a defaraat affaire yi parce que jox nañu marem rôle boo xamante ne dafa dafa kii kay dafa boo xamante ne xam nga tey suñu doom yi dañuy toog di seetaan man sama doom baa ngi nii keroog xaw ma lan la doon ne mu ne ma. yaay sama jour anniversaire mais comme marem lu mu defaral loon xaw ma kan euh, torchon bi noonu di jël ko di ko takk ci baatu biiram noonu affaire yooyu noonu nee na yaay man noonu nga may defaral comme ne xam nga luñ gis rek déjà dañ koy wax waaw looloo tax ñun ñuy wax mais amu ci benn problème moom série bi neex na torop yàlla na leen yàlla jàppale ngeen jëm ci kanam kanam.